seen mbokk nag moom moo ñëwaat ci tafsir yi nga xamante ni mi ngi leen koy amal ci seen falaas point com bu ko defee ngeen abonné rek ñu ngi mën a suivre mbooleem tafsir bu ñu fi tàbbi ci barab bi. tey nag dañuy ñëw ci beneen saar bi nga xamante ni saar bu am solo la bu bëri ay jàngat ñu koy wax suratul asri nga xamante ni am na ñu wax ni madaniyatun la aw makkiyatun waaye ñu bëri dëppoo nañ ni madaniyatun la mais am na ñu ni makkiyatun la. waye nak sar mi nak di jàngal am ay jàngat yu bëri yu ñu ci wara def ndax suñu borom indi na ci ñent kurel ya nga xamanteni dañ leen cité gannaaw bi nga xamanteni ni ni ma ngi ci jamono lepp lo gis ci aduna perte na ba mu dess ñi nga xamanteni ni la suñu borom tuddu ca ca kurel yoy te mu tuddu ci sar bi waye am nañu ni sar bi li taxoon mu daal wacc neena nee bi sallallahu alayhi wa kare ak julli yi dañu ben xare buñ doon wax xare xandax bu ñu waxee xar xandax nag mooy xare bi yonente bi sallallahu alayhi wa ak julli ni gasoon ay kanaal yu wër mu daal di wër madinatu a munawwar nga xamante ni bi nga xamante ni yéefar yi dañoo amoon doole ëppoon leen lool lu boobu teñ lañ jëloon gas ay kanaal ngir contre yéefar yi nga xamante ni yéefar yi biñ ñëwee mënuñu woon a dugg waaye nee nañ bés boobu kat yonente yi yonente bi ak julli ñi julli ñu woon julli tàkkusaan ndax lan ndax nekkoon ci lig boobu liggéey ak boobu xare bi loolu amee nag abu bakrin xelam dem ci ni moom ñu tàkkusaan mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yonente bi yàlla na yàlla alak julli ñi nga yéefar yi nga xamante ni ñoo ñu teree julli julli tàkkusaan rëbb yàlla yàlla na dal seen kaw yonente bi sallallahu alayhi wa ko man mii sax julleeguma tàkkusaan te timis mi ngi bëgg jot te moonte julli bi nga xamante ni moo gën ci julli yi gat moom lañ fàttey muy lan julli euh, tàkkusaan te ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dan ko woy salaatul wusta moy julli dig doomu ndax buñu xolé takusan ci digënté ñaari julli yi la nek moy timis ak ge ak euh, suba ak euh, tisbar waye bi nga xamanteni waxna lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam momi ñaan ni yalla yalla reub daal di dugal safara fessal safara ci jéefar yi nga xamanteni tay ñoo ñu téré julli julli 5 kër kon fofu jang nañ fi julli 5 kër njariñ bi mu am amna ñu ni motax suñu borom wacc saar bi waaye amaa na beneen version bu si ñëwaat am na ñu ni li tax suñu borom wàcci saar bi dafa amoon benn soxna sa nga xamante ni jëkkëram dafa tukki woon waaye mu daal di koy mooy gannaawam mooy mu daal di njaalu gannaawam ba njaalo boobu mu mujjee see jëlee benn tut tànk mu mujj tollu diggante maanaam wan lool bi loolu amee nag soxna soosu nag lan la def bi mu amee doom dafa daal di jëlaat doom boobu dem tàbbal ko ci benn barigo bu amoon sàngara daal ko fay dugal daal ko fay tëj ba xale boobu mujjee faatu waaye yamu ci mu daal di jëlaat sàngar boobu am ñoo xamante ne nag dañoo ñëwoon doon jënd bineegar mu ñëw nii leen am naa ko daal di jël sàngar soos daal di leen koy jaay nga gis bàkkaar yi mu def waaye soxna soos nag mu toog ba léegi xelam di ko yedd saa su ne di ko yedd ba benn bés mu daal di jël tànkam daal di dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy gaaral loolu lu ñaaw loolu tam defoon ñeneen bi mu ñëwee wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa yow yonente bi def naa bàkkaar ba nga xamante ni jàpp ay bàkkaar yi nga xamante ni jàpp naa ne suñu borom du du ma ko mës a jéggal yonente bi ni ko loo mën a def suñu borom mën na koo jéggal bàkkaar lu mu rëy rëy borom bi mën na koo jéggal bi mu waxee loolu nee nañ mu ñëwaat waxaat ko yonente bi sallallahu alayhi wa mel ni ku ko tàngamlu waxaat ko loolu waaye troisième fois bi mu ñëwaat nag ne ko yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam damaa bëggoon nga laaj ma ban yan bàkkaar laa def yonente bi nag sallallahu alayhi wa bi mu ko dalalee laaj ko yan bàkkaar nga daal def dana ko da ko ko wax ni ko dama mooy sama jëkkër te nekk ci buum waaye jëlee ci lor wanne ci lor doom boobu bi mu juddoo ma daal di koy faataat daal di koy dugal ci barigo bu am sàngara waaye rawatina sàngara soosu dama ko jël jaay ko ay nit yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waaru ni ko yàlla rëbb yàlla mi ngi ci yow ni ko nag def nga bàkkaar ba nga xamante ni jël nga sàngara jaay ko te sàngara ku ko jaay ak ku koy jënd dañ laa war a àtte dóor la quatre vingt yar maanaam juróom-ñett fukki yar waaye tamit ni ko bàkkan bi nga rey nag kooku suñu borom mën na ko bañ a jéggal waaye nag njaalo bi nga def moom faat la dong moom mooy wàcce bàkkaar boobu nee nañ ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi ngir ñu daal di koy rajmu daal di koy sànni ba mu faatu waaye am nañu ni tamit yonente bi sallallahu alayhi wa saar bi bi bi mu wàccee julli seen kër woon moo tax mu daal di wàcc ñenn ñi wax ni soxna soos te ñëwoon ci moom gaaroo ko loolu moo tax mu daal di wàcc waye amna ñu ni dedet suñu borom dafa giñ ci jamono ndax wala asri amna ñu ko firé jamono amna ñu ko firé julli 5 heures waye nak yonnate bi sallallahu alayhi wasallam tamit soxna soosu neena yonnate bi daniko li taxoon nga def bakkar yooyu yep moy lan moy da nga faratalu julli 5 heures da nga bayyi won julli 5 heures motax sa xol dem bay def lu ñaawteef ya nga xamanteni sax do ci and ak sa sago ndax waxnañ ni inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar maanaam julli mbooleem ñaawtee yoo doon def mën na la ko dindi fexe la ba ngay def ay jëf yu baax waaye nag borom bi lu ci mën a am let suñu borom subhanahu wa taala wala asri giñ naa ci jamono giñ naa ci jamono ñenn ñi seen kër la julli tàkkusaan mu ne innal insaana naka doomi aadama la fi xusri giñ naa ni perte na doomu aadama kat perte na ñu mel ne dañoo laaj suñu borom subhanahu wa waa ndax doomu aadama yëpp perte yàlla ni déedéet def leen ndànk yàlla site ñeenti kuréel yi nga xamante ni bokkuñu ci kuréel bu njëkk bi suñu borom dafa wax ni illa alladina amanu bu njëkk bi ba mu des ñi nga xamante ni ñoo gëm yàlla di topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem mooy la nga xamante ni waaye ñëwoon ci sëriñ ba gaa yi ñëwoon ci sëriñ ba euh, toog ak sëriñ ba sëriñ ba wax leen ne ndax xam ngeen imaan ak islaam ak ihsaan ñu ne ko iman rek li ñu ci xam mooy gëm yàlla waaye ihsaan li ñu ci xam mooy rafetal waaye nag islam li ñu ci xam mooy yàlla yi nga xamante ni suñu borom farataal na mooy ponk yi juróom ponk bi nga xamante ne wax na leen loolu sëriñ boobu dañ leen juumoo leen sax de waaye mu gën a leer rek al mooy lan mooy gëm yàlla ci lépp lu mu al islaamu mooy lan lépp loo am génne ci wàllu yàlla waaye nag al ihsaanu mooy lu mu dogal borom bi daal lay neex kon illa lazina ba mu des ña nga xam amanu ñu gëm yàlla waaye nag wa amilu salihaati la sëriñ bi waxoon te mooy islaam mooy li yàlla farataal ci yow yépp nga daal di koy matale daal di koy def na mu soobee mooy julli yi ak koor yi ak dem màkk yi ak génne azaka gannaaw ñaari seede yi nga daal di sàmmonteeg moom ba du la rëcc kon ak kan ak ban kuréel moo ci des suñu borom ne nag watawaa sow bi xàkki mooy ñi nga xamante ni ñooy ndénkaani ci dëgg boo julliwul boo wóoru ñu wax la wooral boo du jàng arxaan ñu daal lay teg ci dëgg waaye ala kulli xaalin lu mën a xewlet boo defee naka su dul ñoom moom dinañ la jël teg la ci yoon wax la dëgg la Omar ibnu Xataab waxoon ba mu toogee ak yonente bi sallallahu alai wa sallam bi yonente bi sallallahu alai wa sallam di laaj sahaaba bu ne yéen ñett mbir nga gën a bëgg Omar ibnu Xataab dani ko bëgg naa siiwal dëgg donte dañ ma ciy mere waaye bëgg naa tamit siiwal lu ñaaw donte dañ ma ciy mere moom it waaye bëgg naa di wax dëgg dont dañuy yëkkati paaka sax di ko teg sama baat kon wax jooj dafa firndeel ni wax dëgg nit ki lu am solo la waaye tamit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni omar ibnu xataab wax na ko lool yonente bi sallallahu alayhi wax na ci benn xadis mu ni man raa munkaran fal yuhayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi yonente bi nag nii képp ka nga xamante ni dafa gis lu safaanoo ci doomu aadama lu ñaaw mu ni bu ko ko bu ko mënee dindi ci loxoom na dindi bu ko mënul na ko wax ci làmmiñam waaye bu ko mënul nag na daal di loolu te bañ saa ànd ak moom wala mu bañ saa békk kon yàlla nee na ñooñu tey dénkaane ak ak dëgg dëggu ci ñoom bokkuñu ci pertange boobu te mu tudd waaye nag mu ni watawaasaw ak kuréel ñi nga xamante ni ñooy dénkaane lan bi yi ci muñ ba lu safaan bu la dalee wala tiis ñu ñëw encouragé la bañ nga découragé wala bañ nga xaddi ci lan ci yërmale borom bi subhaanahu wa taala saa su ne bu la suñu borom subhaanahu wa taala tegee natt ñi ngi ñëw naan la muñal ndax yàlla dina la ko teggil wasbir inna allaha maa sabirin yàlla kat way mu ñi mi ngi ànd ak ñoom kon ñooñee tey def loolu ñooñu la yàlla cité ci ci euh, saar bi di suuratu asri kon suñu borom jàng nañ ci ci saar bi nii nit kat bu toppeek jamono wala bakkanam ba bakkanam daal di koy noot kat perte na ndax mënatul jariñ dara ci suñu borom sa bakkan nag boo ko toppee kat lu safaanu rek la lay la lay yóbbu te nañ xam ni lépp suñu borom xaraamal bakkan ko daal di bëgg waaye nag nañu def suñu kéem kàttan donte sax daanaka mënuñoo moytu lépp waaye nañu moytu lépp la nga xamante ni bakkan da ko namm da ko bëgg ndax bu ñu moytuwul kat danañu jëmale ci yoon ba nga xamante ni yoon bu amul lëndam la la sëriñ bi waxoon daa tax sori dunya bi oxra yaafata man baa nuuran bi dunya fa sa yandamu bul mës a jaay sa àdduna jëndee ko àllaaxira mu ni képp ku jaay sa leer jëndee ko lëndam da nga rëccu ëllëg yoomal xiyaam kon loolu nañ koy jéem a moytu bu baax waaye kon jàng nañ ci ñeenti ñi suñu borom ci te ni duñu ci bokk mooy ñi nga xamante ni ñoo gëm yàlla waaye nag te di ko jëfe waaye ñi nga xamante ni yàlla farata ci ñoom ñuy sàmmante na ñoom moom ba di ko def farata yooyu ñu ngi koy def waaye tamit ak ñi nga xamante ni ñooy dénkaane lu metti métti dëgg waaye tamit ak ñi nga xamante ni ñooy muñ kon ndakate lépp lu la suñu borom teg na ko daal di muñ ndax muñ kat moom mooy li nga xamante ni moo mën a jariñ ak jullit ndax boo muñul lépp lu la suñu borom teg mën ngaa def naka su dul noonu wala dem ba découragé ci yërmande suñu borom te yërmande suñu borom dafa yaatu yaatu ba nga xamante ni ñëpp xañ nañ ci mbokk yi seen mbokk seen xarit moo leen woon tafsir boobu ñu gën ko xam ci sotu asri lépp lu ci dëng ñu xam ne suñu matadel ak suñu ñàkk fasaxa waaye lépp lu ci jub ñu ngi koy sante borom bi subhanahu wa taala waaye bu leen fàtte di woote ci numéro bi nga xamante ni moom mooy affiché seen bas de l'écran bu ko defee ngeen saytu lépp la nga xamante ni kat lu jëm ci seen wàllu diine la bu leen ci amee ay question yu leen leerul bu leen wootee dinañ leen ko leeral insha allah te bu leen fàtte tamit abonné ngir ngeen mën am mboolem video ma nga xamante ni ñu ngi koy tàbbi ci barab bi kon mbokk yi ñu ngi leen di ziyaare waat di leen nuyu bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa